Votre bulletin d'information communale, BIC. Khoudjam, présidente commission santé sociale du mouvement Action Initiative Citoyenne. du mouvement bi mooy taxaw si lu jëmale si suñu gox kanam ñu ànd si macha initiateur ak suñu coordinateur Moussa Samdaf, directeur hôpital Dalal Jamm bu action yu mu amee mën nañ ko tëral ci par exemple commission yu ñu tegal parce que ñun dañu doon ay ndaw yu nekk bi Ouest Foire ku nekk nga nekkoon ci sa côté di liggéey te nga xarañ ci bu baax a baax suñu directeur am euh, xalaat bu rafet woo ñu dajale ñu ñun ñëpp ci la ñu defee mouvement MAIC bi mu tegal ñu si nag ay commission ngir gën a mën a yombal suñu liggéey ñu am commission santé sociale comme bu xew tey bu xew la insertion et formation sport et loisirs, éducation euh, environnement ak assainissement ku que nekk nek ngi nekk ci sa domaine di liggéey lu rafet a rafet récemment sport et loisirs ñoo defoon tournoi de l'amitié ñu ñëwaat encore tay tamit fi ñun environnement aussi ay volet de nettoyage ñu ngi ci won comme ni ñu ko waxé won clean day bu ñu nekkee machallah te suñu président sant ñuko fekk na même avant mu koy wax ñun ay ndaw lañ ñu ngi ci doon liggéey macha allah Moussa Sam daaf ñëw gën ñu si ñax gën ñu si taxawloo pour ñu nekk ci. journée tey bi dafa nekkoon benn journée de partage et de solidarité boo xam ne dañu ñëwoon pour raffermir lien yi suñu lien entre ñun ak suñu ay doom parce que dañu tàmm di wax doomu jàmbur mais man damay wax doomu jàmbur amul doom yëpp ay doom lañu doom boo doomoo mu nekk sa doom parce que xamoo kuy jëriñ ëllëg noo nga doom la. dafa nekk ci daara macha allah xëy na ay waajuram ñàkk nañu moyen tax ñu indi ko fi wala mënuñ leen yor ñu indi leen fii kon tey jii ñun ñu xalaat loolu noonu xam ne ñun suñu doom yi ñu ngi si suñu biir kër am nañu sécurité totale macha allah ñu ngi leen di couvrir ñu ngi leen di jox amour mbëggeel bi wax si ñoom ñii ñu ngi ci daara bii nii xëy na nekkuñu ak seeni ay waajur ba tax ñun liggéey bu ñuy liggéey ba tax ñu bëgg a jëmale suñu gox kanam dañuy xool touche yëpp fépp la ñuy laal ba tax nag ñu tànn daara mu nekk bu njëkk boo xam ne si suñu commission ñu ñëw ci daara oustaz Omar dem tey fii nii ñu taxawee tànku yaay ak papa bépp jigéen jël place su yaay tey bépp góor jël place su papa ñu àndandoo ak euh, ñoom macha allah. waaw bu nekkul ne dañu tëb tëb rek ñu ñëw fi tey. ñëw nañ fi benn yoon dellu si waat fi dellu si waat fi ngir xool daara bi ñun ñu nekkee ay ndaw lañu te du ñu jóg rek ñu ne nañu jël li ñu yóbbul ko suñu doom yi ndongo daara yi mais dañuy ñëw dugg ci biir daara bi ay nit lañu yor nañu ay bët parce que kenn du tere nit xool wala nettali dugg nañ fi xool nañ nu ñu nekkee te suñu xel dal na si ñoom waxtaan nañ ci tamit macha allah lu ñu fi gis moom suñu xel dal na si mais loolu tamit dañu leen siy gën a ñaax parce que seytaane dafa bëri doole mën nga nekk nit bu jullite mun nga nekk nit bu baax mais bu seytaane di ñëw dafay ñëw mais boo xoolee nit bi comme sa doom comme sa rakk wala comme sa mag volonté de bienveillance mu nekk ci yow yaakaar naa ne loolu war na mën a ñàkk war na mën dakk aussi sama kàddu bu mujj mooy maa ngi gërëm ñëpp ma koy commencé ci sama ñaari waajur parce que bu lépp amee tey ñoom la may gërëm suñu leader Abdoulaye Diouf Sarr ma si teg suñu directeur Moussa Sam Daf di suñu initiateur di suñu coordinateur mouvement sama xol dafa fees dama kontaan moo tax bépp xale boo xam ne bépp jeune boo xam ne maa ngi àndoon ak yow si activité bi maa ngi koy gërëm di ko baalu ak parce que métti woon na méttiwul dañ ko defee par amour xol la ko defee ndax ñun depuis ñu nekk xale la bëgg di joxe mënuñu xool koo xam ne xëy na amul wala néew bi doole la nag ku yor ñaar ngay yor benn wala yorul dara boo dindee ci sa bos nga jox ko amaana xëy na dëkkin bi dina neex dina métit dina wàññeeku ba tax may gërëm képp ku àndoon ak ñun ci activité bi nii tey male lay ak bu baax baax baax di baalu ak ñëpp macha allah di gërëm ñëpp di wax zéro faute suñu coordinateur Moussa Sam Daaf ñu ngi koy gërëm di ko sant parce que ay ndaw rek la ñu woon. ñu nekkoon ku nekk ci sa côté di liggéey te bi mu ñu boolee gis nañ ne mbooloo mooy doole te am na lu mu yokk ci ñun tamit